يا من mbokk jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum du tilim waaw du tilim di gàllaaj bu yàgg bu fi mag ñi bàyyi woon yow mi doon gëstu ngir am téere boobu sa jaaxle jeex na du tilim ñi ko am xam nanu njariñam di gàllaaj bu yàgg bu fi mag ñi bàyyi woon yow jigéen bi nga xam ni danga të am borom kër raba la jàpp seytaane moo la jàpp wala làmmiñ wala bët bés boo amee du tilim borom kër yomb la lool ba ci jigéen bi nga xam ne mënul toog ci néegu sëy def def laak lu mën a doon bés boo amee du tilim daa toog ci sa biir néegu sëy du tilim ànd ak ay sanget yu am doole macha allah gaaw leen wuti gàllaaj jii di du tilim gaaw leen jokkoo ak oustaz Sidi Top nekk ci Ouest Foire ci 77 583 86 53 wala ci 76 427 97 53 wala ngeen envoyé ko message ci whatsapp bi ci 77 959 08 97 oustaz Sidi Top mën ngeen jokkoo ak moom ba yéen ñi soxla listixaar aju bu ngeen am mën ngeen jokkoo ak moom. ba ci gént bu leen jaaxal jokkoo leen ak moom yéen soxna yi doon laaj ci gàllaaj yu du tilim gaaw leen jokkoo ak oustaz di Top ku ko am ku ko am yëg ne am nga gàllaaju mag ñi gaaw leen wuti du tilim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 ñu ngi leen di ñaan ko am gént nga ko envoyé ci numéro bi ci suuf ci whatsapp bi incha allah wala nga jokkoo moom ci kàttanu yàlla ñëw tey ci beneen bunt ci firi gént tey ñëw ci gént tëdd gént gis xale bu jigéen bu rafet bàyyi nañ koy laaj jigéen nañ leen dinañ ci ñëw incha allah ñëw nañ ci maanaam tëdd nelaw ñi wala xale bu jigéen bu rafet boo xam wala boo xamul mu rafet wala mu ñaaw lépp la ñu boole ko incha allah gént gis bu njëkk bi mooy danga gént gis xale bu jibee jigéen boo xam ne dafa rafet lool wanti euh, xam nga ko xam nga ko euh, hadi ruya jamila jiddan tadullu ala alfarj law annahu makrub wa in lam yakun makrub tubashirhu bisaada wa axyanan tadullu ala tadullu biziwaaj liman lam yatazawwaj wa axyaanan tadullu ala alxayri walbarak wa rizq wa axyaanan tadullu ala taf tadullu bitafawuq wannajaax wa axyaanan tadullu hadi ruya bitahqiqu niya maanaam tëdd gént gis xale bu jigéen bu rafet léeg-léeg dana ñëw fekk koo xam ne dafa nekkoon ci ay xat-xat ak jafe-jafe lool nga nekkoon ci ay problème yu métti métti jaaxle nga gént gis xale bu jigéen bu rafet tegtal na ci ne sa jafe-jafe yeeg xat-xat yi mu ngi jeex bari na ñu naan rab laag seytaane laag faru rab laag yooyu waaye dangay jàpp li mën a wax dangaa nekkoon ci ay xat-xat bari bor bari problème jaaxle lool nekk si jaaxle jaaxle yàlla wan na la tëdd ñu wan la nga gént xale bu jigéen bu rafet boo xam ne xam nga kooku jafe-jafe incha allah mi jeex loolu lay fi ci ku nekk ci ay jafe-jafe bu fekkee nekkuloo ci ay jafe-jafe du bi saada yàlla dana defal tawfiix ak ay xew yu bare bare bare bu fekkee gént di gis gént gis xale bu jigéen bu rafet léeg-léeg dana nekk sëy ci célibataire bu góor koo xam ne amaguloo soxna léeg-léeg mu nekk sëy léeg-léeg ñëw nekk ay xéewal yu bare bari ak wërsëg bu yaatu yaatu boo xam ne dana ñëw ci léegi-léegi tamit mu firi ci yow yëkkati ci sa wàllu liggéey wala ci sa wàllu njàng réussite total wa axyaanan tadullu haadihi ruya li taxqiq umniya maanaam mu am yoroon yaakaar wala yoroon toppatoo wala loolu mën a am yàlla dina dimbali sa yaakaar yooyu leen sotti ala kulli xaalin loolu lay yii ma la wax lay lay bu fekkee nag nga gént gis ama ida alfataat maanaam bu fekkee xale bu jigéen bi nga xam ne danga ko gis nga xam ko ba pare mu amee melokaan bu doy waar maanaam melokaan bu gën a ñaaw bi nga bi ko xamee woon ak suma zakat mooy contraire li may wax walla la fekkoon ci jàmm ak salaam xat-xat dana ñëw ñàkk bu tar yaakaar bu tas baaxul maanaam ci nag yaa ngi dëkk xam nga turam xam nga santam nga xam ko ci taar bu rafet nga tudd ñu woon la ko ci gént waaye anam bi ñu ko gisee moo gën a ñaaw bi ñu ko ne baaxul ay xat-xat ak jafe-jafe yaakaar ni tas na baaxul bu fekkee koo xam la ñu woon la ko ci taar gën a rafet wala taaram réel baax na lool bu fekkee nag kin la woon xale bu jigéen bu rafet la daal rafet na lool waaye yow xamuloo ko ñett lay tegtale bu njëkk bi tadullu ala saada maanaam ay xéewal yu bare bari ak texe wa tadullu aydan ala rizq dana ñëw tegtalee wërsëg wa tadullu aydan ala maal tahdidan ñuy wax rizq dañuy yaakaar ne xaalis rek mooy mooy rizq maanaam bu tuddee bu rizq fee bi sifa amma léeg-léeg dana ñëw nekk xaalis tahdidan maanaam mu nekk xaalis boo xam ne mu ngi ñëw ci sa loxo gént bu baax la su fekkee ñu gént ñu wan la ko xamoo ko waaye jigéen bu rafet la bu fekkee koo xamul la dama nekk ku ñaaw ak su baraatu saaxee moom itam euh, safaanu li ma la wax la mooy ay jafe-jafe gi xat-xat yu méttee méttee ak ñàkk la baaxul da nga gént gis xale bu jigéen bu rafet annaha aariyat yaani biduni istiyaab solu yére mu def yaramu neen nekk koo xam ne majhuula xamoo ko lii dañuy wax risaalatu min allah message la bu la sa borom envoyé li tax mu wax la ko mooy sa njaboot benn sàggan nga ci ñoom toppatoo leen yàlla di la wax ne la euh, nga sàmm gën a aar sa njaboot ci seen wàllu yar bu fekkee tëdd nga gént xale bu jigéen bu rafet li nag ëpp lañ ñu ngi gént borom njaboot moo xam góor moo xam gént nga xale bu jigéen boo xam ne solul yére yaramu ne la def yaani ruya euh, ruya tahdiriya la bu fekkee kii nag ci gént gis xale bu jigéen bu rafet bi dafa nekk jigéenu ëmb maanaam jigéen ju wérul la yaa ngi ëmb nga gént gis xale bu jigéen bu rafet haadi ruya ruya aksiya la maanaam gént la boo xam ne li ma lay teg mooy jigéen lan la woon ci gént waaye doom bi ngay ëmbul sa yakunu wala maanaam yàlla doom bi nga ëmb mu nekk góor insha allahu tabaraka wa taala bu ko defee lii mooy li nga xam ne moo aju woon ci tëdd gént gis xale bu jigéen bu boo xam ne xam nga ko wala xamoo ko wala mu am melokaan boo xam ne dafa safaanoo ak loolu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné ci am lu leer mën nga ko envoyé ci whatsapp wala nga def say commentaire ma zalika àllahi bi alim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu alam